vraiment ñuy euh, ñëwaat tey d'après bi nu dajee si jàkk ji kilifa yi euh, ak euh, waa SIREC def point de presse ñu si jàngat rek ni état dafa am manque de considération envers la population de Cambérène ñun nag li ñuy wax rek la ñuy waxaat chaque jour mooy ni que addina bi fépp am mën Sénégal gépp ku gis démb ba xam ni ndox mi ndox mu bari la. ndax dañuy nangu ndogalu sunu borom ci taw bi muy wàcc waaye bu fekkoon Cambérène ndoxu taw rek moo fa wàcc coow du am duñu dégg kenn di wax mu fekk ni aussi ONAS bi nga xamante ni moo lépp luy ndox ci Sénégal am ay rigolam yoo xamante ni am na bu nekk à l'unité 9 tey fi nga xamante ni sunu frère sunu doomu ndey sunu xarit papa assan yàlla ko yàlla yërëm fi mu génnee àddina ndoxu ONAS bi nga xamante ni moo jugee ci rigolu interneuf bi mais mooy dem ba tali njëkk mbay dem ba mën a gaa yi ñoo ànd ndox mi dama dem ba mu yemm fii si la arrière mu doon loo xamante ni lu mën a ñàkk la parce que mënoonu nangu ñun muy taw ONAS di verser ay ndoxam ak Cambérène beneen bi si des su fekkoon dañoo am assainissement bu baax au moins ñu mën a wax mais Cambérène amul assainissement eaux pluviales yi démb bi liy tijji rigole bi démb ñu ñëpp fii la ñu du fanaana ku xool suñuy bët yi xam ne nelawuñu ngir dimbali ñi nga xamante ni ñoom ñoo loru ci ndox mi rigole bi leen di pour ndox mi dem rigole boo tijji day refoulé à cause de quoi parce que ndox mi ndoxu waa parcelle ak littoral ak kii du entourage bi ndox moomu lay yóbbu mais man damay wax ni mënuñu dëkkoo au bord de la mer même pas un kilomètre géej gaa ngi fii ci gannaaw mais ñun ñuy am problème mu assainissement ba pare ñun ñu agsi au vingt et siècle mais loolu au nom de quoi lan la te nag li ñuy laaj saraxuwunu ñaanunu danoo bokk ci dëkk bi nekk ay citoyen rawatina nag sunu lépp ñu jël ko jox ko état mais Cambérène wàccu naag état état moo des ak ñun rappelez-vous président Macky Sall li gën a metti li gën a metti ci xol mercredi bi passé def na te tenir na conseil des ministres masaru na fépp fa inondation am bay lim ay tur lim na ay dëkk tuddu sax ak Cambérène te Cambérène am mort au nom de quoi amul kilifa ku ñëw jël teg tànkam ñëw fii à Cambérène waa léegi ñun suñu jógee pour taxaw suñu dëkk wax ñuy wax xale yi xale yi xale yi seen droit la nekk li ñuy réclamer ñoo ko moom saraxawunu ñaanunu ci dëkk bi lañ dëkk comme tout citoyen boo xamante ni mi ngi Sénégal te pare. le pire gisoo fi benn autorité ministre de l' intérieur Karoor amul benn réaction ñun nag li ñuy wax chaque jour li nu moom fekk joxoonu ko ñun ak ñoom fépp si dëkk bi sunu dëkk ñun ñoo ko moom. Cambérène fii Cambérène Seydina Isa alayhi salaatu wa salaam la fii mooy dëkku gàddaayu Seydina Limaam alayhi salaam cër gin jox faneen ak faneen dañu koy jox te ñun ñoo koy dem jëlik parce que nag lii ñuy def ak force. Euh, ak euh, du épreuve de force bi ñoom loolu la ñu bëgg parce que ku bind du la wuy ku woote du la jël ñu tekk fan loolu nag day doy day jeex ndox mi jugee parcelle di jaar rond point bi di dugg du Cambérène ONAS dina ko arrêté ci nii wala ci naa ndox mi jugee unité di dugg si fii si Cambérène teri Ndiaga Mbaye ONAS dina ko arrêté si nii wala ci te nag na xam ni ñun bàyyiwul leen li ñuy wax ak li ngeen nuy dig di ngeen koy def. manque de considération woo weesuwul ñu toog waxtaan ba nu tënk te yàlla est-ce que buy taw day tàggu asamaan saa ngi nii xiin tey ñi nga xamante ne dañoo inondé li nu weer woowagul sax waaw léegi duñ indi duñ indi ay solution dañu war indi loo xamante ni tey bu tawee ndox mi du fi toog ay moto pompe ay autre lii ñuy liggéey nii du liggéeyu nawet du liggéeyu nawet dañu war a indi ay moto pompe su tawee ñu pompe ndox mi mu dem géej gaa ngi nii à 100 ñuy am du problème mu ndox ñu tekk fan Cambérène zone ba zone ba kon nag xam nga ONAS jël seen matukaay. d'accord démb ci ci caserne yi ak bien sûr parce que si dëkk bi lan dëkkan ah. li mooy li ma wax rek li nu def fépp Cambérène mérité na ñu def ka fii te sax. su dee nga ko teg fi nga war a teg Cambérène mais ñoom fii leen war a njëkk mooy li may wax kenn mënul wax Dakar te waxoo Cambérène loolu mënul am donc maa ngi koy leer ministre de l'intérieur ñi ngi lay wax ni loolu ma ki Sall wax Cambérène ñi ngi koy xaar parce que si dëkk bi leen dëkk ñun dañ war a jot suñu wàll saraxuwunu nag ñaanunu de ñaan ñaanuwunu loolu suñu droit la parce que tey fi ndox mi taawu lépp ay ndoxu day la service d'hygiène war na fi ñëw ay ndoxu day la après day wow ñu nooy war ka feebaraat on a ce ni 30 ans mu indi ñu ay eaux usées amul traitement amul dara mais mais mais lii lan la est que ñun jeunesse bi war a toog di seedaan non du ñu seedaan ñu nag ñoom ba nu jot li nu moom loolu laa am lu moo koy wax ci turu jeunesse de Cambérène voilà.